salaamaaleykum euh, suñu mbokku internet yi ñuy bàyyi xel à travers euh, Wanema TV ñu dikk ak euh, yéen nag si benn mbir maanaam coowal léeg léeg lu am si diggante comédien bii di Pathé seen ñu xam ko si série Adja ak beneen comédien bii di Serigne Ngane gannaaw bi nga xamante ni rek gis nañ benn vidéo boo xamante ne ni moom moom di Pathé seen rek daf ko daal di def rek mu nekk genre analyse di wax si wàllum série waaye nag mu daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko si série bii di. mbetteel moom Pathé Sène di xam ne que ni eh, série mbetteel daal bett na ko trop gannaaw ba nga xamante ni nekk lii di saison un ba quatre daal ñoom waa mbetteel eh, tourné nañ ko moom Pathé Sène nag analyse bi mu def rek si série bii di mbetteel mooy eh, li ko dale si série première saison bi ba quatrième saison bi daal dafa am ay wute yu si am mu ràññee ni lii di première saison ba troisième saison bi lépp daal daal di nickel waaye li nga xamante ni moom mooy quatrième saison bii di daw daal euh, nekk na loo xamante ni daal am na ay failles yu bëree bëri si wàllum euh, technique maanaam lu jëm si côté son ak ak montage ak cadre yi nga xamante ni daal baaxul benn yoon loolu nag nekk kàddu yoo xamante ne nii euh, mooy analyse yi Pape Sène daal di def rek si série bii di Mbetteel waaye ki nga ràññee ko lool si série bii di Mbetteel ñeel kàddu yooyu nga xamante ni rek Pathé Sène daal dina koy yëkkati euh, jëmale ko si série bi neexul benn yoon moom moomu di euh, Serigne Ngagne ba tax na rek moom Serigne Ngagne mi ngi wax que ni euh, Pathé Sène waroon na xam ñaata la ñuy dépensé ñaata la ñuy dépensé te nee amul dara lu muy wax Pathé Sène ndax intéressé wu ko benn yoon te moom Serigne Ngagne dafa waxoon ni du mës yëkkati ay kàddu daal di koy jëmale si ki nga xamante ne nii moom mooy Pathé Sène ndax ko waral mooy bokkuñu école benn yoon waaye nag moom moom nga xamante ni rek moom mooy Serigne Ngagne yemul foofu nag ñu yëkkati ay kàddu teg si nit dina yor malakaanu nit ba set loolu nga bëgg ko loolu waaye su waxee rek da koy jàppee ni xaj. maanaam kon daal Serigne Ngom daal su sukkandikoo si ay kàddoom dafa jàppee ki nga xamante ni rek moom mooy Pathé Sène maanaam xaj boo xamante ni daal xamul lan lay wax te it xamul fan lay taxaw waaye ba tey rek moom Serigne Ngom wax ji lu ko metti la ba tax na yëkkatiwaat na yeneen kàddu di xamal moom Pathé Sène na ko. waxaatee leneen lu ni mal maanaam dina gis lu raw lu mu ko wax loolu nag nekk kàddu yoo xamante ni daal suñ bàyyee xel si li sëriñ daan wax ay kàddu yu menace la yoo xamante rek daf ko jëmale si ki nga xamante ni nii rek moom mooy euh, Pathé Sène waaye moom sëriñ Ngagne ma wax ji xamante ne rek daal di ma yëkkati waaye moom Serigne Ngom nag métit lu ñuy wax ji ñaawlu ko bu baax a baax tey it nee na moom Pathé Sène lan la def si aar bi ak ban trophée la fi am ba tax mu war a jugé ndax moom du référence te du moo leen di wax li ñu war a def ak li ñu warta def ndax ku def saison 1 ba 4 xam nga ko def saison 1 ba 4 jekk nga yéen te it xam nga scénario bi ndax première saison moo gën a jafe te it def nañ ko c'est mu war a te it yi nga xamante ne nii rek ñoom ñooy seetaan mbetteel na leen te série bi ñu leen neex la ndax ñoom ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo koy joué nekkuñu ay ndaw te ay mag lan yoo xamante ne nii dañ leen tàggat eh, si wàllum cinéma ba tax na lépp lu ñuy def rek dañ koy teg teg yi nag yoon ndax série bi nga xamante ne moom mooy mbetteel kenn du ko seetaan ba gis lu ñaaw bu yëkkatiwaat ay kàddu di xam ne que ni ñoom sénégalais yi dañ siy jàng lu bëree bëri ndaxte li nga xamante ne moom mooy réalité bi am si sénégalais rek loolu nekk di wane waaye du benn yoon ñaaw tef boo xamante ni euh, nekk ko dafa war a yam fi nga xamante ni rek mooy place ndax jàng taxul a mën nag suñu borom moo koy def si nit ñi te ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa mbetteel am nañ baax a baax te it ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di gérer wàllum technique bi bu amoon benn yoon technique balaa série bi génn rek ñoom dinañ ko xool xoolaat ko maanaam daal moom Serigne Ngagne daal dëggoowul ak benn yoon kàddu yi nga xamante ne nii rek Pathé Sène daal dina koy yëkkati ay kàddoom nag yi nga xamante ni moom la Serigne Ngagne daal di mujj daal mooy kan ni ñuy xamal Pathé seen na ko na yem si kuddu ñu def ko si béyet balaa leneen di si xew.